nga ne waa xam nga ne ay naafeq rek a fa nekk ay seytaane satan ñun dëgg sunu borom moom wax dëgg yàlla man xaw ma Sénégal lu mu lu lu tooñee sunu borom ba sunu borom ba muy wàccee kii yóbbu ko Pakistan yo yóbbu ko fee nu tati ca xeex ba fa mu méttee. Euh, Iran Iran wala Irak mbaa mu yóbbu ñu ko ca Poutine mu ñu koy wàccee fii ci Sénégal. muy Ousmane Sonko. sunu borom mënoon na ko wàccee ci yooyu xeet ci xeetu naar ya te ñay xeex mu bañ ñu koo wàccee sunu réew mu sell mi. da nga jàpp ne Ousmane Sonko nitu fitna la. ah dangay laaj wala confirmation ngay wër wala ngaa bëgg ma dut ci baaraam kañ la fitna commencé ba mu demee tuuti neex neexam dellu ne complot la ñu xëy warok woo ko na ko suba ñëwal tey jii mu woote ne suba dañ maa woo génn leen résistance c'est de la lutte libère. fukki nit ak ñeenti dee ci neex-neexam moom moom xeexuñu ci askanu si mbiru Sénégal xeexuñu si jafe-jafe Sénégal ci coono Sénégal waaye moom fa mu demee ba yëg fa neex-neex loolu la woo askan bi leen génn la ñuy ba fukki nit ak ñeenti dee mu toogaat laajte ne dafa bëgg a def euh, génn ñu ne ko autorisé wuñ ko mu ne askan wi génn leen ba askan wi di génn moom ñu ne ko doo génn tëj ko ràpp gaynde xombal gii doomu leen na ñang beeg màgget joom mu bokkal promotion génn pee moom mu génn nadde bokk ak moom xombal kooku dëkk mu dëju mu génn dem ba ca ñi nga xam ne mooy policiers yi di di ñaar di négocier fi ngay xamee ne rek sénégalais yi pare nañ ci Ousmane Sonko donte nag am na ñoo xam ne dañ koo faan ndax fenam yu metti xam nga yàlla bi muy wàccee fen Ousmane Sonko dafa ne dox jox ma ko mhm. kenn kii fii ku fi fen rek Ousmane Sonko lay rafetaay ndax grossiste bi moo ko yor mu dafa dem ba ca policier ya ne leen da sama doom daa war a jàngi daa war am cours 9 nii te wax boobu la wax njaw boobu la wax ndaw yi génn leen ñaari nit deewaat ci xaw ma ñett waaw wala ñu toogaat moom Ousmane Sonko mu ne bokkul ñu ñu rejeté benn liste mu ne liste bi ñu rejeté par force par A ou par B da ciy bokk te bu fekkee bokku ci yéen ndaw yi laay waxal mu ngi ko waxee si place de l'Obélisque jour élection yi bu kenn dugg voté la woon fa woon. Ousmane Sonko ba ñëpp ne nitu fitna la gis nañ. mais ko wooyee bii passé. waaw may ma rek may ma rek may ma rek may ma maa ngi ñëw bu ma dagg. Mhm. mu ne la woon fa woon. ndawu Sénégal yi ñi bëgg seen réew am seen wàll ci nar wi na la woon woon ni na dootul amati. gisoo as euh, euh, élection yi am na gisoo fuñ ne sàcc gisoo fuñ ne njuuj njaaj lépp jaar yoon ñëpp teg ci seen bëgg yéen a génnee résultat te kenn constaté wul ba tey gisoo kenn ku taxaw ne lii pourquoi ça. ñu toogaat ba mu nekk ko moom Ousmane Sonko mu ne waay toro see toro Macky Sall mu koy xañ aduna suwaat sénégalais yi génn ñu fekk ji Macky Sall fële ca pare ñu limosé ko wa ilaa moom mu ba politique dem toogi ji Ziguinchor concentré wu ci li nga xamante ne moom mooy lii wam nu tati moom moom mooy maireem kooku nga ne du du du te chaque jour mooy woote violence ñu toogaat ba mu nekk moom Ousmane Sonko bi nga ne dañ koo woo mu toog ba mu nekk ko xool yónnee ñu ñu jàpp tey boobu balaa maa réer ñi ñu jàpp force force occulte yi ñu jàpp ñoo ñana rebelle ya ñëwoon waroon bokk ca waroon bokk ca rassemblement ba ñu jàpp leen Ousmane Sonko ba tey ngaangu ci yàbbiwu ci lu tax waxul Pa Abdou euh, nu mu tuddati euh, Pa Abdou Seck defe naa ba ñu taxawoon dañ koo rey dugg na fii fële na fële fekk dafa dawoon nekk Touba. mu bokk ci li nga xamante ne mooy force occulte ñu bëggoon a def ay ay ay taal di taal fii di taal fii ñu jàpp ko Ousmane Sonko dégg nga mu waxaat foofu lu leer rek la doon laajte. waaw dama lay laaj man la Ousmane Sonko dégg nga mu waxaat ci. Mhm. et pourtant kooku xam nga ne ci bopp ci moom la bokk. Mhm. teer bi bii Ousmane Sonko da woon teer bi bu dawee santatu Sonko. Mhm. ter ba daw. mu xam ne ne ñëpp ña waxoon ne bi dafa seer rek def nañ ci ay milliards niita naa tey jii teer bi moo gën a dox lii nga xamante ne mooy taxi mbaa njaga njaay mbaa rapide mbaa bis ñu xam ne lii mu ngay dox lan la ñu def yónni seeni ndaw ne leen dem leen ngeen dagg kaabalu teer yi pour ñaari teer yi mën a daje soog mën am ñu bëri dee ñu naan waxoon nañ ne ko teer yu bon fi indi borom teg ci loxo nga ne kooku kooku du nitu violence la ngay wax ne barki démb bi ñu ko wooyee dafa dem wuy ji mais Ousmane Sonko amatul woon suwa dafa yónnee ay ndawam ñamu wóolu ne dem leen ngeen xoolal ma nee naa la gay na xombal gi doomu leen na ñang beeg Maguette Diop ki nga xamante ne mooy ki gën a ndaw ci mouvement présidentiel bi yor ci nombal kànk bu ci kenn yorul président renouvelé ko c'est la première fois sur l'histoire du Sénégal di Antoine Félix Diome ngay na xombal gii jël ay matuwaayam yu wër péng ne ko la woon woon ni na boolewul dara ki wax di jëf mu yónnee ñu dem ñëw ñu ne ko ñun la ñuy gis ma suñu koo gis foo génn gendarme yaa nga fa police yaa nga fa ici amul fenn mu ne kon Moussa Ousmane Sonko da nga kaa mos a gis muy def ay point de presse te balaa muy def loolu <laughs> dafa fen loo waaye yeewi ña topp ci ginnaawam matadi doon ay mankan kunkan waaye di ba ñuy politique Ousmane Sonko ngay kuusu génnagul fi nga xamante ne moo ci lalu ndeyam toppatee usmaan Sonko ndax xam nañu bu ñu àndul ak Ousmane Sonko kenn du leen décréter kenn fenn muy ñooxit faal ñooxit faal di dëcc. Mhm. muy ki nga xamante ne mooy dugubab soow dugubab ceeb. mooy kan. Khalifa Sall dañoo génn toog ak Habib Sy ak meurtrier bu bon bi. ki nga xamante ne moom bu ñu ko joxoon micro ne ko waxal waroo mën a waroo mën a wax ndax amatul parole ñàkk jom nag moom weesuul nga rey nit ba ñu tëj la gracier la nga ne yow da ngay toog di wax muy kene door ñu ne ñoom ñooy wax ba lan lañ wax waaw ni incha allah dañuy génn Ousmane Sonko kenn du ko lii dangeen ko bëgg lii mu bàyyi leen ñu wax ba pare ñooñ dañ ko doon défendre 16 juillet bi lañ woote yéen journaliste yi ngeen dem wuy ji mooy jour bi ñu ne bu subaa Ousmane Sonko day wuyu ji. ñu wax lu leen neex tël tël fëk fëk Ousmane Sonko jékki-jékki rek mbas leen ndax ci la dëkk. seetal Barthélémy Diaz bi Ousmane sonk taxawee ne Barthélémy Diaz du leader. wu fi kenn. Barthélémy Diaz mu ngi négocier ni boobu ba tey dama lay laaj xaw ma ndax def ngeen constat bi yéen journaliste yi. Mm-hmm. boobu ba tey est-ce que di nga gisati nga Barthélémy ci lu yeewi askan gi woote mu ñëw toog. conférence de presse wala point de presse bu mu mënti doon gis nga wala ñu seen réunion yooyu ñuy def gis nga ti nga Barthélémy Dias ñëw te moo doon jëkk dama lay constat laa leen wax li ma la wax ne boo pare nga yóbbu ma vaar nga xool bii bi Ousmane Sonko waxee loolu Barthélémy Dias ba tey foo gisati Barthélémy Dias sa yeewi dafa ne patt nag ñuy masala mais ñun ñëpp xam nañ lépp mhm. ñoom ba ñu toogee wax seen wax ba pare Ousmane ko bi ñooñu di wax au moins sax mu jox leen cër comme am lu muy wax mu wóole parce que ñooñu duñ def conférence de presse te laajuñu ko mooy seen bàyyi mooy diriger ndax boo seetloo seen seen groupe ba sax moom rek ay administrateur mooy rof mooy rocc ku ko neex mooy dugg ku ko neex mooy génn ci yeewi askan bi seen ñoom leader yi. Mhm. ñoom dañ koy woo xam nga mënoon na leen woon wax ah man de bi pa ma décidé bu ma kenn topp ma dem rek wuy ji ñëwaat comme te entente la xam nga deful loolu. Mhm. daa bàyyi ñooñu tëlli tëlli wax ba doyal 16h mu génn Ousmane Sonko ba doon seet ay 20h la doon génn 21h. jour boobu 16h la génn daal ne waa waxuma kenn mu fi topp ma ku ma topp ku ne yaa xam bu ma kenn topp bureau doyen des juges laa dugg ñu déglu ma kenn mënu ma cee tëj ndax dañ may déglu dong ma pare ñëw ñibbi mu peeral ñee ñaf leen 2-0 teg leen ñu ne waa tekki mag yu ñàkk fayda mag yu waye di mag yu mankankunkaay topp xale bu ndaw mu leen di wili pale di leen tël di leen zël di leen zël zële. Déthié Fall ci at tamit génn na. waaw dama ne la Barthélémy danga ne génn dama ne man li ma la wax leer dama ne la bi Ousmane Sonko nee. du leader ba tey nga wax ma fu conférence de presse yeewi askan bi amee wala point de presse foo xam ne da nga fay gis Barthélémy Dias man di laa la laaj waxuma ko génn na de Barthélémy moom day génn parce que dañuy masala day génn mais dama ne nga wax ma foo ko gis si ñoom boobu ba tey. amaana nag bu ma déggee nii te nit ñaa ngi koy remarqué maa ngi koy wax amaana mu génnaat bu ñu génnee mu topp seen ginnaaw mais looloo am boobu ba tey ñaata we ñaata point de presse a fi am ñaata conférence de presse a fi am te Barthélémy Dias tukki wul ci conférence de presse yi tukki wul ci point de presse mu ngi Sénégal njaag yi sukki pénc ak ñaar yi ne fi kon tey boo ma ne Ousmane Sonko dem na mais Ousmane Sonko il fallait mu dem c'est forcé mu dem bu dem woon ñu ko dañoo du xam nga le 16 le 6 mu ngi nii dem wuy ji. Mhm. na woote. ci la 6 boobu laay ñëw yow sa sa jàngat ci la ci le 6 bi. du ma ci wax maa pare défendre Adji Sarr du ma ci ŋang du ma ci yàbbi je m'en fous. lu waral loolu sama yoon new lan. lu waral loolu man maa sama bopp su ma demee balay défendre rey sama bopp fayoo ma xamoo nu may def nu may saaga ndey di ma montel ay photo di ma montel ay vidéo di ma génnee sama doom mu may saa ñoo na na na dal sama kaw lu ne ndax yow. may dem ci télé yi paasaloo ma jëmumaa toog ak yow jëmuma laa lijjanti xanaa bu may sonn ci yow fekk yow fi nga tëddee sa kaw lal di taal sa crime di lekk man maa ngi ci réseaux sociaux yi di rey sama bopp xanaa boo ma mën wax jaajëf sax nga mën a tëj sa gémmiñ man waxulaa man directement mais la mu wax dama cee gis sama bopp dama su may lekk ci ndab am naa fulla gu toll ni ju dugg rey nekk bàyyi fulla fay da borom am naa fulla gu toll ni kenn du ma mu dugg ci 2STV boobu déggulee lu mu wax ci loolu sax wax na wax na wax mais ci wax ji dégguñ ko mu tudd sa tur. ci wax ji tuddul sama tur mais maa ci gis sama bopp. déggoo ma wax man su may lekk ci la du ma ba ñu téye sama loxo dama naa may xam suur naa dafa ne sans vous na ñëpp la wax et avec vous j'irai au procès ba may dem fee ca gendarmerie ànduma ak yéen te bu may dem te procès bi di jàkkaaroog juge bi du ànd ak yéen dafa fàtte keroog ba muy dem di def confrontation Ndeye Khady Ndiaye ñun ñëpp a jóg dem. dooleel ko. gis nga de mbir mi daana am buzz ana François Hélène Gueye dégg nga ko ana Khalifa Sall dégg nga ma wax ci ana man dégg nga ma wax ci lu nee na mënoon na boppam sagam Ousmane Sonko mi mu jiiñ viol moo yor fukki avocat ak juróom la ba opposition bi yëpp leader yu mag yëpp ànd ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko waxul ñooñu bugguma di woote saa yu waree dem wuy ji bu so del xool la cinq dina woote maalakat dina woote na ñëw leen mbala nii wala naa sagam kooku mooy wut ñu ko dimbali Asma moom gune gu ndaw goo xamante dañ koo délaissé partout Sénégalais yi délaissé ko journaliste yi daw ko ñu ko amul doole amul ñu ko ñu ko xeexat ñaari avocat la am ñun ñu jël suñu doole suñu kàttan suñu alal di ko dooleel moom xamul suñu jaajëf xamul jaarama lu naa dañuy yemale man kenn du ma yemale maa pare ci défendre ko téléphone bul ne bul ne kenn kenn nekkul ci ginnaaw ki nga xam te mooy Gabriel gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam te ne mi ngi ko siy def yal leen yàlla jàppale man sama bopp laa xam moo koy defaan na ko defaandu yal na leen yàlla jàppale may leen ndam dëgg bi feeñ doo ma duggal de. mu mel ni waxu <laughs> violence faite aux femmes bi ñu doon wax yaa ngi ciy bëgg a génn ndax buñ nee Adji Sarr jigéen la. déggoo li ma la wax naa yow ba may xeexal Adji Sarr ko ko xeexal la ma wax défendre ko Adji Sarr si réseaux sociaux yi tra plateau kan moo ko ñemee wax ñu dem ma ne Fatoumata Ñaari far réew. dafa xamadi lu ko neex lay wax muy wax Ousmane Sonko bay wax ay waajuram niita naa ma dem bay tudd tudd viol violu kilifaam banaa répétitif la lu ne ma wax ko la ma def kenn da koo def te ma nekk Ndakaar gi Ndakaaru njaay gi nekkuma Paris de nekkuma Europe de fii laa nekk jàkkaarloog ñoom di ko xeexat ana mu tey lii la may fay du ma toog woon nañ ma wax am ñu bari woote ñaan man leen maa ci pare te maa ci pare mën naa dem saa man man yokkalu ma ko dara xëy na. diggante boobu déggante wu leen. déedéet déggante wu leen. diggante sotti ba léegi déggante. déggante wu d'accord man bëgguma sax déggante wu man pare naa ci teeluma ko dara nag wax dëgg yàlla mais maa doon défendre maa défendre toon point barre. d'accord euh, Fatoumata Ndiaye Tampi ñu ngi lay jaajëfal sa sa mot de la fin ci ci émission bi. ne stop. non violence à la femme dafa war a doy dafa war a dakk loolu laay wax di sant di gërëm ñëpp nag ku lim juum ñëpp kaw ba cat prix boor mbaboor ñëpp di leen sant yéen people 221 di sant followers yi naan nag maa ngi xaar retour yi man xam nga damay liir commentaire damay liir saaga man dama tul man mënatulee ma fer ñeente def ngeen lu ne pour bëgg maa xokkatal man mu sama sama fit moo jeex amatuma fit li ngeen di wax naan ay la mu wax nii c'est se parce que dañoo war a dal ci kawam moom léegi nee nañ kenn ñemewu la wax si Moustapha Sy mi nga xamante ne moom mooy njiital piir doon politicien la muy wax kenn amul fitu wax Fatimata Ndiaye fu tampi nee moo am fit nañ dal ci kawam ñëw leen je vous attends avec les bras fermes bi ngeen ñëw foo leen fekk man ngeen fekk ak sama jànq ak samay doom kenn naw fi garde du corps new fi dara new fi ñëw leen xam ngeen yéen da ngeen di ban ban waaye ban boo leen ñëwee bu cinq duggee xam naa ne kaddu moom dinaa leen wàcce ci tuy tuy tuy gudul jeex nuyu naa leen ziar naa leen jaa ngeen jëf